fañtànne xutbu ya fa lañ ko tànne asalaamaaleykum mbokki taalibe yi jot nañu ndigal ci sëriñ Muntaxa Mbakke yàlla na fi yàgg Mbakke te wér xalif général ku lu murit ñëw ca rakkam ja sëriñ Cheikh Mbakke mu Cheikh Abdou Khadir ñëw cër sëñ Bousso Bey Bousso ba nga aj mi nga xam ni mooy xalifa sëñ Bousso Bey ak njaboot gi ak bokk yi ak xarit yi sëñ Mamoun Bousso xalifa sëñ Mbakke Kanni Alaaji Fàllu Bousso cumbaleen xalifa sëñ Masamba Kanni ak njabootu nag sëñ Masamba Kanni Bousso gépp ah le 2 octobre bis baa ngoog mooy bis bi ko sëriñ mu jàkkaarloog moom àllarba lay doon le 2 octobre na ñëpp ñëw Touba xam ngeen ni nag bis boobu nag wenn sàll la nga jëm ñaari picc sëñ Cheikhouna Bousso mii xalifam sëñ Maram Bousso moom ci jëmmi boppam nag dafa jël bis bi baayam bii sëñ buso Maram dugal ko ci bisu maamam sëñ Massa Bakkat xam ngeen ni nag bis boobu nag ñu ngi ko dara jaale sëñ moor Soxna Bousso sëñ Mor Soxna Bousso nag mooy taaw sëñ Saa Bousso moom ci boppam nag moom lañ ko dara jaale sëñ Massa Bakkat nii nag moo doon kenn ci moom la sëriñ Touba woo ak sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou ni sëñ Modou Moussa sancal Tindodi ni sëñ Fallou sancal Ndindi ni sëñ Massamba Kan ni sancal Daaru Xadim bis boobu nag moom la ñuy màggal le 2 bis boobu nag ñu ngi ci yoo Mbusoo ba yëpp njabootu sëriñ Bamba yëpp cheikh yoon wi yëpp kenn la woon sëñ Massamba Kan ni sëñ Massamba Kan ni ak sëñ Mbàkke Kan ni ak soxna Aminta Kan ni mi nga xam ni mooy waajuru Cheikh Abdou Khadir njabootu Mbusoo ba bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn ñu ñenn xam ngeen ni nag sëñ Massamba Kanni digganteem ak Serigne Touba ku ne xam na ko mooy ki sëñ Touba bëggaloon boppam mu bëgg Serigne Touba bis boobu nag le 2 octobre la bis bi ñu nag tax di ko màggal sëñ Massamba Kanni Serigne Touba ko téye wan ko rasulillahi tahran xam ngeen ni nag bu ñu xëyee programme bi daañu jàngal xuraan bernde ku wax kër sëñ Massamba Kanni wax bernde bu ñu nëppee nag daañu def cérémonie officielle ba daañu fa def waxtaan woowu. sëñ aboo basiiru moor moo koy def bu ñu nuppee nag sëñ bi yewi mbooloo mi ñaane leen ña ngi koy defee nag ca daaru xadim yoonu Touba Belal wax nañ ko ñépp. Mustafa ya hajaban li Ahmad al Muxtaari rakam jafaatoo foofa lil anwaari ko Mbacke Kadior TV di intérêt askan wi soxlaa leen yitteel leen ba pare di leen jaamu chaque jour rawatina actualité yi xew ci Touba Mbacke mu leen koy wan en direct da duñ ci dagg dara xibaar yu wér te wóor rawatina fépp ci réew mi ak actualité ak bépp xew-xewun man di moo tax nu naa 300000 abonné mën a réew mépp la yitteel mbokk yi am na site YouTube nanu abonné partagé aimé nu abonneel ko aimé partagé teg ci ndax yitte askan wi képp la Mbacke Kadior TV yemul foofu